wàcc waay beste lu dal ci ñun foog ñu yëg ko te loolu mënut a waaye li gën a rafet ci àdduna mooy bu seen rawat nag xewle lu mel nii nga ñëw ko gunge ko ñaanal ko yàlla loolu wareefu doom bu euh, nga suñu yaay ñaanal ko benn bi ci des mooy doom yi nga xamante yàlla na ko yàlla xaare àjjana quoi ak bépp néew fu mu mënti nekk ci àdduna quoi mais di leen jaajëfal aussi yéen seen teewaay ndax yéen seen teewaay yi ku nekk ni ko gisee man ni mu ko gisee mooy li yàlla def njabootam muy ay nit yu célèbre yéen nangu ngeen ko yéen a ngi koy ànd kon seen ñëw bokk na ci liy gën a liy gën a yëkkati famille kon yàlla yokk yokku ba yëg ko ñu ñu koy ziar euh, di ko jaale famille bi yëpp waaw famille bi yëpp waay famille Pa Cinq Fay bi yëpp waay waaye jërë ngeen jëf maam jaajëf afiya rek père nuyu maa ngi leen di fay euh, di la jaale la moom moo di waaw maa ngi leen di fay di euh, rafetlu seen déplacement di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, maire bi euh, daanaka dawlu na noonu rek laa ko mën a waxee dawlu na jigéen ju baax la woon man suma suma yaay la suma xarit la woon ndax xam na suma relation ak doomam muy Mbaye Dieye Faye donc mbay ñu ngi ci ay ñaar fekk at lu topp loo xam ne ñu ngi liggéey man ak moom donc bu naqar dalee ci kawam man sama bopp man it dama koy daal di yëpp donc euh, ñu ngi leen koy jàll yéen it press bi parce que Mbaye c'est un artiste te artistes yi mënuñu dem sans la presse donc euh, su amee bés bu mel nii la presse ñëw taxaw Euh, jël ay témoignages donc ñun du ñu def lu dul également jaal leen ko yéen it donc ñu leen koy jaal bu baax a baax. Mhm. alors comme une vingtaine mi ngi nii nga nekk ki nga xamante moo di moo di Mbaye Gueye Faye mhm. euh, est-ce nga yaayam ak lan nga ñu mën a wax ci moom. jigéen ju baax une femme formidable jigéen ju euh, tëddee njaaxanaay jigéen ju njaboot njaboote ñëpp boo demee par exemple face boo xoolee buntu kër gi da ngay gis ni fii këru ñëpp la. donc bu lekk jotee ñëppay ku ci sa muur nekk da nga koy da nga ciy xewlu mu nekk jigéen joo xam ni également saa yoo ko mësee gis bëñam ngay ngay ngay seen parce que elle était une très belle dame nag jigéen ju taaru boo xamee ni euh, soppalu euh, baax am yëg am diine ba pare nag am personnalité yar ay doomam euh, jaarale leen fi mu leen war a jaarale ba ñoom seen biir yàgg naa seen biir musuma gis lenn lu ñagas seen diggante c'est parce que ci seen ay wayjur lañu ko jële Vieux Cinq Fay ak ki nga xam ne mooy Adja ana lan nga ñu mën a wax ci diggante Mbaye ak yaayam en tant que di leen fréquenté di leen gis ñoom ñaar ñuy dund. une grande complicité xam nga mbay moom doomu yaay la donc euh, mooy suñu genre bi donc ñooñu euh, dafa nekkoon euh, jigéen joo xamee nii doom ji di mbay doomam yëpp sax dañ ko jege woon mais mbay daf ci amoon rôle bu particulier bu mu ci doon joué parce que mbay hmm, man daanaka lépp luy dem ci gafa gi ak di jóge ci gafa gi man euh, sama loxo lay jaar et dama doon gis ci ni muy jaaree sama loxo nan la may euh, joxe par exemple ay instruction ni dafa war a dem ci way juróom bu bu bu jigéen donc euh, mais loolu sax lu ci gën a bare mënuma ko étaler ci public bi mais damay wax daal ni ku toppoon ay woy juróom la ku toppoon woy juróom wu jigéen la eh, wax naa ko démb ci euh, bees beesu léegi ni ko doo mën a xam lan mooy njëriñu doom taxawaay bi mu war a taxaw ci ndey wala ci baay tànk génnul àdduna commencé di compter à partir de maintenant loolu laa ko wax. Mhm. ci soxna si fàttali générosité une très belle une femme africaine sénégalaise am euh, maanaam jukkoob sénégalaise am euh, teranga sénégalaise am yittewu sénégalaise am comportement wu sénégalaise am vraiment euh, mbindub une vraie femme africaine donc jigéen ju baax la jigéen ju taaru la woon jigéen ju dal la woon jigéen ju uuf njabootam jigéen ju bëggoon njabootam la donc loolu lay retenir ci moom. ci Mbaye Gueye Faye ñu ñëw si tuuti en tant que koo xamante ne liggéey ngeen en dehors de liggéey bi yan yan relation ngeen amoon parce que dañu gis yaayam bu décédé ñeen ñëpp ngeen ñëw en masse soutenir mais relation animateur artiste relation sénégalais entre sénégalais relation entre ay jullit relation ñu bokk réew mi mais relation ñu am une relation particulière parce que. mbay Sénégal yëpp xam nañ ni euh, li ñu seq euh, xam nga ko xam naa ko keneen xam na ko donc relation boobu la ñu seq relation nit ak nit relation bu professionnelle donc euh, mbay nit ku baax la il est formidable. alors lan nga koy ñaax wala nga dénk ko sax ci demu yaayam bi parce que bien vrai que mère bi mag la waaye yaay yaay la mën a doon te absence am dafay feeñ à tout moment mhm. lan nga koy wax moment yi mu toll. bu mu teggi tànkam fi mu nekkoon même bu dul taaw mais yàlla mooy jël mhm. nit ci biir kër. jox ko ay cër jox ko ay matuwaay c'est pas parce que moo fi gën parce que li mu nàmp ci ween woowu moom la Jibi Fay nàmp moom la Alaaji Fay nàmp moom la Riche Niang nàmp moom la euh, euh, maanaam Baye Demba euh, nàmp moom la Elie Diagne nàmp moom la keneen ak keneen macha allah ma leen mais daanaka mu taxaw taxaw ba bu mu ci bouger benn yoon. merci voilà gars yi ginnaaw bi ñu leen nuyu yaatee gis ngeen ni ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy ci buntu almeeri Yoff yi ñu nar indi ki nga xamante ni moom mooy suñu maam suñu yaay di yaay ci ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye gis ngeen tout à l'heure image yi nga xamante ne dugalal nañ leen ko foofu nga xamante ne moom moo nekkoon ci levée du corps bi foofu ca fas ñëpp génnoon ñëpp taxawu ko ñëpp gunge ko ñëpp ñaanal ko ñëw ak moom fii nga xamante ni moom mooy ci dernier hommage bi muy këru dëggam ñor ko denc fii nga xamante ni moom mooy ci Yoff gis ngeen ni mm, Youssou mi ngi fi Mbaye Dieye Faye tamit gis ngeen ko yegg si na léegi dugg na sax ñun nag du ñu dugg ci biir almeer ndax dadul woor ma sax waaw mais nag mën nañ leen toppal li nga xamante ni moom moo fi am comme ay témoignages mën nañ leen toppal li nga xamante ni moom moo fi am comme li nga xamante ni moom mooy ci célébrité yi ñëw comme comme réaction rek allah mais daal en grosso foofu nga xamante ni moom mooy ca jumaa ja gis ngeen ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour yegg si na fa teel na fa yegg si def lu rafet duñ ne gulet ndax ku xam ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye Faye xam ki nga xamante ni moom mooy Youssou Ndour donc c'est très normal ndax ñoom ñoo bokk papa ñoom ñoo bokk yaay du rek li ñoo bokk li nga xamante ni moom mooy euh, super étoile déedéet seen seen relation jéggi na foofu ndax ci ñoom ñaar daan nañu dégg ku nekk bu musaana def bi yenn témoignage wala bokk yenn émission yoo xamante ni ci moromam la dina wax lu rafet loo xamante ni tey lii bu amee duñ ne duñ ne duñ ne guléet déedéet lu rafet la encore une fois kay dañuy ñaanalaat ki nga xamante ni moom suñu yaay ji wala bokk suñu maam ji yàlla yërëm ko jéggal ko te xare ko aljana incha allah ci barke Seydina Muhammad gis ngeen ni waa ndakaaru gi waa pour ne pas éviter de dire euh, waa Fass waa Colobane waa Médina ah pour bañ a wax loolu dama naan ndakaaru gi yëpp ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak moom ki nga xamante ni moom mooy ci dernière demeure ki nga xamante ni moom mooy ci dernière hommage bi nga xamante ni tey war nañ ko ko gunge fii ci Almeri ginnaaw bi ñu jugee foofu nga xamante ni moom mooy ca ca ca ca ca ca jumaa ja ah mu nekk lu daw yaram mu nekk lu tiis loo xamante ndax duñ ne lu metti waaw comme ni ma waxoon sànq rek ndax yàlla suñ to dogal ñu naan dafa metti déedéet mais nag dañ koy tiis lu lool waaw di santaat yàlla bu baax a baax di ko wax alhamdulilah ni lii bu moom noonu rek lañ ci war a mën a teg te xam ni yàlla moo ko dogalee nii ci li nga xamante ni moom mooy jàmm wax naa ko sànq nee naa nga xamante ni moom mooy mbéjee fay daan na ay bés yu demee nii yoo xamante ni ay jegeñaaleem wala bokk ay soppeem wala bokk ay xaritam yoo xamante ni ñoom ñoo doon dund lii kon tey moom mi nga xamante xamante ni moom mooy euh, ki xew le parce que lii euh, benn benn benn gaar la boo xamante ni ku nekk rek boo yeggee sa terminus incha allah foofu ngay foofu ngay foofu ngay foofu ngay arrêté foofu ngay taxaw foofu lañ lay waajalee pour jëbbal la ki nga xamante ni moom mooy suñu borom gis ngeen ko artistes tamit ñoom ñëpp yegg si nañu pa Youssou Ndour rek gis nañ fi ku mel ni ku mel ni ah waaw Ousmane Ousmane Aliou Mbaye Nder ah bëri na tant d'autres bëri na pour pour ne pas citer rek waaw bëri nañ fi loolu waaw ñëw sutenir ko ñëw encourager ko ñëw dooleel ko ñëw wan ko ni li muy métti métti incha allah dina xaw a wàññeeku ndax di nga ñu gis li muy métti métti dinañ ko xaw bokk ak yow ndax li dafa doon loo xamante ni moom li muy ressentir jamono ji moom képp moo ko mën a xam kon daal mais daal ay actes yu rafet la ay actes yu rafet la ah gis ngeen ko nit ñi ñu ngi dugg ah ñi ñu ngi dugg boobu ba tey ah, ku nit jugee na fu nekk nit jugee na fu nekk nit jugee na fu nekk waaw muy signifier que ni ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye Faye ak famem Mbaye Dièye Faye ak yi ah amoon nañu benn relation bu extraordinaire ak ñi nga xamante ñoom ñooy sénégalais yi pour pour bañ a dire fans yi ba moo waral ñoom it ñu bàyyi seen occupation ndax tey jour ouvrable la ah tey moom mooy ci Almadies ñi ñi ngi gën di ñëw nit ñi ñi ngi gën di ñëw nit ñi ñi gën di ñëw ñoom ñëpp ñu ne dinañu jéem a bokk ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Mbaye Faye tiis bi nga xamante ni daal na ko ni ki démb ndax démb ci guddi gi la ñu yëg li nga xamante ne moom mooy xibaar bi waaw mu nekk lu metti parce que moom mi nga xamante moom mooy Mbaye Faye dafa demoon foofu ca Gambie ah, defoon benn nga xamante ni moom mooy benn tournée ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy orchestre am ci waa Super Étoile bi mu yegsee rek si la dogal li am te xam nga gis nañu koo xamante ni gëm na gëm na yàlla lool ndax ni ki sànq bi ñu ko gisee foofu nga xamante ni moom mooy ci kër ga ak jumaa ja gis nañu koo xamante ni ku dal la gis nañu koo xamante ni waaw macha allah nangu na parce que yii c'est pas évident xam nga mu wàcc si sa kaw nga ànd ak benn sang froid bi du yomb mu dal si sa kaw nga nga nga nangu waaw xam ni yàlla moo ko dogalee nii tey ci moom ndax comme ni ma wax sànq moom mii daan na ñëw ci ay bés yu demee nii yoo xam ne danaan gunge ci nit daan na ñëw ci ay bës yu demee nii yoo xamante ni ay jegeñaaleem ñoo xewle woon tey nag moom moo xewle waaw dañu koy wax massa dañu koy wax massa dañu koy wax massa di ko wax ni lii yàlla na fi gëj te aussi sunu maam ji wala boog sunu yaay ji yàlla na dee di doon noflaayam waaw ñu leen di massawu wat bu baax a baax a baax a baax xanaa dañuy kay xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy célébrité yi wala bokk yenn autorité yi nga xamante ni gis nañu leen fi ndax ci levée du corps bi am na ñoo xamante ni gis nañu leen mais moom mooy seen réaction wax seen ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye Faye wax ak ki nga xamante ni moom mooy seen moom mooy suñu maam ji wala li nga xamante ni moom moo fi war a amee fi nga xamante ni ah gis ngeen Matar Diop suba teel mi ngi noonu di yegg si ah Matar Diop suba teel mi ngi noonu di yegg si xam nga muy symboliser waat encore une fois que ni Sénégal ñun ñoo ko bokk tey mën nga bokk fi nga xamante ni moom mooy Subatel mën nga bokk fi nga xamante ni moom mooy Faramareen mën nga bokk aussi fi nga xamante ni moom mooy Super Étoile mais ak lu ci mënti am rek gis nga lii nii xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais wala lépp loo xamante ni ñoom ñu ngi koy def à travers ñi nga xam moom seen seen seen seen i mooy gis nga lii nañ ciy bàyyi xel bu fi bu fi kenn ñaawoo kenn bu fi am kenn ak benn diggante boo xamante ne ay xarma yàlla la ciy am bu fi kenn nekk ak nit waaw nekkin koo xamante ni tey waaw boo gisee sa morom di nga sëgg ndax tey lii nga xamante ne moom la Matar Diop teel def tey xam ngeen ni euh, kenn mënu ko bañ a rafetlu déedéet kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy fans yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, artistes na nañuy jàngat ci genre yu demee nii ndax lii nii mun ta ñàkk la tey ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Dièye Faye moom moo xewle waaw suba kenn xamul am mat la suba kenn xamul kan la donc ak lu ci mënti am rek nañuy rafetal suñu diggante yi ndax bu boobaa lii nga xamante ni tey nit ki defal nañu ko nit ñi waaw dinañu xam ni kat lii lu jaadu la lu war a mun a nekk la ndax ñi nga xamante ni tey bu fekkoon ni rek ak fami famille famille Mbaye Dièye Faye la ñoom ñëpp mun ñu def li nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy waajalee ki nga xamante moom mooy suñu yaay ji wala bokk suñu maam ji ah kon dafay am ñoo xamante ni say proche la ñuy doon dafa am ñoo xamante ni say am jàmm la doon am ñoo xamante ni say jegeñaal la ñuy doon bi yow nga nekk côté ñu doxal lépp jaar ci yoon fi nga xamante ni noonu la ñu ko lislaam digalee ndaxte bu nit génne àdduna yi yiñ ko deseel bareetul mooy lan mooy dinañu ko yóbbu ca ya wala bokk ci morgu ba sangu ko buñ ko sangee dinañu ko sàng buñ ko sangee aussi dinañu ko jullee buñ ko jullee aussi dinañu ko jébal boroomam li ci des nag moom mooy ñu ñaanal ko ñu ñaanal ko suñu borom yërëm ko te te te jéggal ko waaw kon kon kon lañu ko dellal lii lañ ko deseel ci li nga xamante ni moom mooy dernier hommage kon jaajëfal nañu ñëpp ñi nga xamante ni tey ñëwoon nañu bokkal ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye Faty am ci tiis bi nga xamante ni dal na ko waaw man du ma ne jamais nakar tiis la ñuy wax ndax yàlla moom sañu ta dogal ñu ne ko daf ñu naqari déedéet loolu loolu loolu nit du ko def asumaak loolu jullit du ko def jullit du ko def parce que dañoo war a xam ne rek lépp lu mën ci am rek nañu ko sante yàlla xam ne lu yàlla def rek dafa doon li gën xam nga des fois dinañu gis nit nit nit kontaan ne alhamdulilahi rabbil alamin mais it comme genre yi da nga naan alhamdulilah ala kulli moom moo defaat li nga xamante ni moom mooy ndogalam ci jaam ñi tey kii nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye comme ni ñu ko waxee woon tout à l'heure mooy daan na fi gunge ay nit waaw seen yaay ñu ko daan indi fi boog seen papa wala boog seen i tey moom la ñu pour mu bañ a wéet fi nga xamante ni moom mooy ci ci ci ci almeri yi ah kon dañu koy masawwaat encore une fois te di xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy ah, célébrité yi wala boog autorité yi nga xamante ni ñoom ñëpp teew nañu fi bu li nga xamante ni moom mooy seen réaction seen relation ki nga xamante ni moom moom Mbaye Dièye Faye ak famille bi parce que def nañu seen déplacement def nañu li nga xamante moom mooy seen dérangement def nañu lépp li nga xamante ni moom la jullit mënal li nga xamante moom mooy moroomu jullitam parce que tey xamante ni moo ko daal métti na lool lii rek lañ ko mën a jàppale ndax tey bu fekkoon benn benn benn alal boo xam dañ ko waroon génnee pour ki nga xamante ne sunu maam ji wala boog sunu yaay ji desaat ci daar dunya du fi jóg bu doon alal moo ko fiy bàyyi tey loolu du fi jóg ndax bu dul moom mi nga xamante ne moom mooy doomam sax mhm. doom ji am na ay xam-xam am na ay jegeñaal yoo xamante ne mun nañu ko ci jàppale de telle sorte que loolu day yemb ba mu mën a des àdduna mais lii dafa loo xamante ni ah, lu mënul woon ñàkk la tey ki nga xamante ni moom moo koy dund waaw d'accord métti na mais ñu ngi koy ñu ngi koy massawaat encore une fois kon dañuy xaar rek bu mhm. fekkee sama naataango taskatu xibaar yi lu ñu ci yokk rek ñu xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy Euh, ñu teew ci biir euh, ci ci biir almeri bu ñu génnee incha allah jëlaatal leen li nga xamante ni moom mooy réaction yi comme ni ñu ko defee foofu ci jumaa ja kon sama gars yi bu leen bàyyi léegi léegi amin yaa rabbi yàlla nañu ko yàlla fay ñun ñëpp jaajëf Thank you. ñu ngi fii ci jumaa bu Fass ci tasay waajur bu jigéen Ndeye Diagne ku wax Ndeye Diagne Faye mooy wax Super ah, jigéen nag mi ngi noonu ah moom mi nga xam ne mooy le chef d'orchestre bi nga xam ne mooy Super Étoile nekk ki nga xam ne moo jiitu ca kanam ah, mu ngi ñëw nag fekkee ki nga xam ne moo nekk seen waajur génn tey di yaay ci Ndeye Diagne Faye di yaay ci moom ñoom ñaar ñu nekk ay jumeaux mu nekk nag loo xam ne ah, lu naqar ak la lu métti la ñu koy jaale yëpp mu ngi ne sol xaftaan bu weex ànd ak rakam bu nit ñaa ngi faafante moom di ko nuyu moom sama jigéen te ñëw ci dëgg frère bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk mi dinaa bokk faasu ni Mbaye Gueye Faye Mbaye Gueye Faye mu ah, mi ngi noonu mi ngi noonu mais ngi noonu di di dox ah, ñu ngi waaj na jullee suñu maam nga xam ne moo fi bàyyi koo di Adja Daaru Mbay suma juumul ah, gis nga famille baa ngi ne taxaw mu mel ni mbokk yi ñooy saaf wante tiis bi métti na lool ndeysaan ñàkk waajur dafa métti rawatina waajur bu jigéen yëpp xam nañ waajur bu jigéen ni mu saxee ci njaboot lii di firnde rek ne ñëpp ñëw wuy si mbay mbay ngi noonu ànd ak ay mbokk ak samedi lañu jëwal ñëpp ñëw euh, fekkee li nga xam ne mooy euh, julli bu mujj suñu waajur boobu nga xam ne euh, dañ ko yóbbu bu mujj foofee ca kër yoo di wax waa kër bi la ñu dem xam naa ne ñàkkul ay séeram ak waa këram gis nga mbay ngi noonu mbay ngi mbay ngi noonu nday jay fay yusumaa jigéen nag mën nga ne ànd ak buuba ci biir mbooloo bi ñoom ñu ñëw ñu ne foofee ca biir mu nekk nag loo xam ne mën nañ ne métti na lool wax tamit ñëpp a ngi jaale njabootu Fayeen waaye di ko jaale ak Aziz ana Aziz gis nga ko wala Aziz a ngi ne ndeysaan Aziz a ngi ne a ngi ne Aziz di rakk ci ci mbay Aziz la woykat di woy woy bu neex ba muy rakk ci mbay jay fay mun naa ne sañ-sañ ñëpp ñëw nañ amul rakk amul mag amul jarbaat ñëpp ñëw mbay a ngi ne mbay di mag ci Baye Demba su ma jumul Baye Demba ak mbay ñoo bokk ndey ak baay ah ñoom ñoo bokk ndey ak baay euh, métti na métti na Kalidou luñ mën a wax jàppandiku rek mooy du euh, yàgg dara ci ay simili xam naa dinañ def li xam ne moo nekk jullee bu ñu war a jullee suñu waajur bu jigéen boobu suñu maam euh, di ajaratu daaro mbay suma juumul di waajur si mbay jay fay ginnaaw bi suñu borom soxlaaye waaye nag mu yóbbu ko ci weeru sell ndax ñu ngi waaj a dugg ci weeru tabaski te bu ñu waxee tabaski xam ne weer boobu weeru gëneel la waaye weeru jéggal la weer boo xam ne macha allah lu si waay ñaan rek daf tey day nangu ndax man ñee ko waxoon borom xam-xam yi waaye maa ngi maa ngi ñëw la waxtaan bu ñoom julli ngay def yàlla nañu yëpp ñu yëpp mboolem mu jullit waaye ñu jiitu yàlla xare leen àddina si kaw ci doon seen noflaay ak ñi nga xam ne nag demal yàlla sax leen ci baax jaamu yàlla lii rek moo ci am de ñëw ak dem moo tax war nañ xoolaat doxin yi jëf yi waaye ñu ngi lépp loo xam ne rek dañ koy doxal ci diggante ak ak ci borom aadama doomam xam noo koy doxee waaye gis nañu waa Fass waa Medina mën nañ ne daal Medina wër na dëpp ñëpp ñoom léegi ndax léegi rek gis nañ fi le maire Bamba Fall ñëw na indi njaaxalam kee sët la sib maire bi mooy ala ala mooy tëggal ki nga xam ne mooy El Hadj Keita mooy sët la ci ci ci maire bi bëri na xam ne ci famille dinañ bokk parce que tëj jaay bu nga xam ne moo nekk famille seen benn. xale yu jigéen ñi dañoo génn dem sëy ah wala xale bu góor dem takk moo tax dama toog la pour faire de cela comme am ay kalante moo tax benn famille boo xoolee waa kër Dundiaay si Boros ñu ngi fi waa kër Seng Seng ñu ak rakk bi nga xam ne mën naa ne sax mooy barage bu baax di seet ci mbooloo bi ji ak bi ba tamit naa wax ak koy Soumarité nag mooy mooy mooy mooy def gis nañ ci tamit waa kër Wally Seck donte Wally ñëw gis nañ ci ki nga xam ne mooy Ndiol Mbaye seen liggéey li nga xam ne bokk ci njaboot bi gis nañu noonu ndeysaan ñu koy jaale ki nga xam ne moo nekk seen yaay di seen maam ajiratu Daaru Mbay su ma juma tur baa ah, koo fi démb ba tey jàpp ci guddi gi démb ay plateau ndax ni mu mel ak ni mu toll ci la ndax nee nañ ngay waaye bu génnee kan ndax Sénégal rek dënnoo moom la wax malheureusement demee waaye waajur ci woykat bu mag bi Youssou Ndour waajur la ci moom waaye waajur la a mag ah, di Mbaye li nga xam ne moo nekk bu dee mu sëggat ak waaye nee naa la bokk na ci utali nag voilà Mbaye nag ndeysaan dafa ci liggéeyam la ko fekkoon ah, ah muy muy muy firnde rek ne gis nga moo tax ñu moom alaa kulli àll la cay kooku ñëpp xam nañ moom waaye yàlla na yàlla na yéex ginnaaw ak tawat ak suñu maam jooju suñu borom def mu ngi noonu daal alaaji xale bi mu ngi noonu métti na lool alaaji xalil mu ngi noonu alaaji amaat mu ngi noonu suñu borom moo sàkk doomu aadama kenn ku neex ak heure bu mu lay yóbbu ak waxtu bu mu lay indi mu ngi noonu nan ngeen jàngatee nag lii nga xam ne tey moo fi xew amaat métti na lool presse bi ba koy jaale njabootu kaayam la waaw la ñuy dooree di wax encore une fois inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey fi nga xamante ni fi ñu ñëw mu ci Fass ñëpp xam nañu tiis la duñ la naka yàlla sañul dogal ñu ne ko non waru ko dogal dañ koy tiis mais gis nañu li nga xamante ni moom nga wax dañ ci ñëwaat tuuti rek mën nañu wax loo xamante ni gën a ëpp li nga wax ndax wax nga lépp mais ki nga xamante ni moom léegi fay di démb la mu jot xibaar bi nga xamante ni dafa ñàkk way juróom jigéen tey fii nga xamante ne mooy ci Fass nar ko waajal a ko jëlee war ko jëfal ci ak nga xamante ne moo ci yokk mm-hmm. gis ngeen bi na fi macha allah mais lii comme ni nga wax sànq rek loolu lay jëlee tey nee nañu bu fekkee da ngaa jub yi kenn xamul ko dee lii doo ko am waaw kon tey li nga xamante ni moom gis nañu ko ay jegeñaaleem def ko ay mbokkam def ko waa Fass Gueule gi comme ñoom ni ñu koy waxee mm-hmm. ñoom ñëpp ñu génn nar ko mm-hmm. na ñoom ñëpp ñu génn ko dooleel ñoom ñëpp ñu génn ndax lii rek la ñu mën a lëkkee mm-hmm. tey kii nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye ay frère am tey moom daan na dëfali ñoo xamante ni ay jegeñaalam wala boog ay xaritam wala boog ay mbokkam mm-hmm. kon tey moom mi nga xamante ni tiis bi ci moom la wàcc te gis nañ nag ni dal na mm-hmm. ndax booba tey ñu ngi ko gis mu ngi ci organisation bi booba tey ko gis mu ngi dal booba tey ñu ngi ko gis mu ngi nga xamante ni loolu la jullit di defal ci nga xamante moom mu rëb jullitam rawati nekk mu nekk nga xamante ni moom mooy way juróom mm-hmm. bu jigéen xanaa tey dañuy ñaanalaat ko ñaanal xolu muñ waaw nga xamante ni moom mooy def nañu ko yegg si nañu ko jàppale ko ne ko mm, tiis bi ñu ne yow ñoo koy bokk doo ci wéet lépp loo xamante ni tey war nañu ko suñu diggante suñu yaay ji incha allah bu ñu deewalee dinañu ko matale mu nekk lu rafet loo xamante ni duñ ne duñ ne bu leen tax ku xam ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dièye moom mooy euh, Youssou Ndour donc lu rafet la te lii rek la ñu mën a lantee encore une fois kon gis ngeen ko nit ñi ñu génn corbillard bi taxaw na ñu ngi ci morgue bi kon kay ñuy xaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nekk ci biir bu ñu paree rek incha allah bu ñu ko génnee léegi ah, ànd ak moom gunge ko foofu nga xamante ni moom moo ci këru dëggam kër gu mujj comme ni ñu koy waxee parce que nee nañu titre bu ñu koy wax foofoo tax mm-hmm. ndax tey ñu ñu ngi ay yoo xamante ak ay oto yoo xamante ni bakk nee na macha allah mais gis nga mm-hmm. li mu mën ci doon yëpp tey yooyu yëpp fi lay fi xam ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Dieye Faye même bu dee moomul Sénégal même bu moomul adduna bi yàlla suturaal na ko mm-hmm. ba tey bu fekkoon mën nañ ni koppar wala boog dara mooy tax yaay ji des fii ci àdduna kon di fi jóge mhm. parce que bu dul moom rek am na ay jegeñaale mbaa ay xamanteef yoo xamante ne mën nañu ko jàppale ci li nga xamante ne moom mooy bu dee ordonnance wala bu dee bu naan la rek su yàlla ñëwee boo yeggee sa garab bi nga wàcc mhm. kon tey dañu koy massoo waat encore une mhm. moo fi nekk mooy lépp loo xamante ne bu ko defee mu doon lu baax ak lu rafet rek nañ ci sax mhm. parce tey lii nga xamante ni moom mooñ fi boole tey ah kenn moomul kenn de mais tey boo xoolee lii nga xamante ni gis nañ ko fii c'est parce rek am na koo xamante tolloon na ko leen wax ni bu leen bu leen bu leen bàyyi ñu nag ñoom loo xamante ni rek war ngeen koo xam ci li moom mooy dese bi comme comme présentement ñu ngi fii ci jël li nga xamante moom mooy Euh, cortège bi war a dem foofu nga xamante ni moom mooy Thione almere bu ñu fa jógee aussi bu ñu mënee am réaction yi nga xamante ñooy doom jege ñaale yi ak artistes nga xamante ni daan ñoom ci nga xamante moom mooy monde musique incha allah dinañ leen ko dégteel ki nga xamante moom mooy suñu plateforme donc sur ce fii ci kanam incha allah jaajëf